Uras Info. Ribari Gao. Tewor. Uras Info. L'info à temps réel. Uras Info. du te Notre force. Le traitement de l'info. koorug gay moorum géej o xaaj ibrahim gay tey jile ci lañu toll ci wiras bu mujj bi fukki fanu goreel ci safara moo des ci koorug ren gile fukki fa mujj yile ci la guddi gu gën junne weer nekk leelatul xadri te kat fukki fan yile lu jullit doon jaamu yàlla da ko war a ful ngir dajeeg bés boobule o DG kafewu ko organiser wu na bu baax teg programme am ngir matal kooram ci mukaayam tey jile baax na imaam Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé la seeti ji comme xam na waayam jile ci la ko dalal ci saalam foofi la toog te kurusam kilim bi du ëpp looloog loolu DG di xoogale ko rek teg lay tànk taal tele bi jàpp Al Jazeera Haj Ibrahim heure bi mel ne luy waaxu simileeg saa tisbaar jot DG moom ci nara a dal kon tisbaar jot na ay de muur muraake la yëguma ci koor DG na muy waxee xelam imaam génn rek te ci loxo bi jumaa ji la ko ko jëmee DG daa génn rek naaj bi tàngal bopp bi mu joxe ngànt <laughs> imaam damaa fàttee yeeslu maa ngi ñëw maa ngi ñëw dil ba dal na delluwaat na ca saal ba imaam dem dikk xaaj ibrahim <laughs> naka mooy noppi rek ci laa dégg gorka di la xam ma xam ne laataa ma yegg rek ñu sulmal ba foofu jullee fii <laughs> imaam ah waa baax na macha allah julli mbooloo daal bokkut ak julli benn nit ne gën gi min def ne salaatul jamaati afdalu min salaatil fadli bi sab'in wa ashrina daraja julli mbooloo ëppee na julli kenn nit ñaar fukk ak juróom ñaari daraja farlu ci dégg nga <laughs> kay dégg na o haj ibrahim nako ñu toga tuuti rek mu daldi forbut ñu tek ci ay simili imam gennati takusan, DG AR ah, ya. da ngay demat yow nan nga sonn de kon julli juróomi nii ngay baagante le war naa xoolal de nun lay gëjee juma. ja imamul akbar Haj ibrahim ku julli mbolo ci juma day bok te ñu sun borom di keral yowmal ya, qiyaama te yoolug julli mbolo moy yoolug nga fanana julli gudd gi lepp te kat dalay andi leer gu mat sekk yowmal ne malaaka yi ñoo la koy seedeel DG <laughs> am na solo macha allah o xaaj ibrahim soo ko waaree rek mu daanu tax mu ànd ak imaam nara julli ji tàkkusaan daa génn buntu kër gi rek naaj bi jamaat ko mu fakkas solo xaw tuut weem teggeeku mu jël temps ci suuf imaam continue ak yoonam DG delluwaat na ca saal ba bandab tànkam yemu ca comme borom connaissance la daa woote rek hôpital imaam Assane Cissé docteur Ndiaye dal di ko fa yebalab ab agent naka mu xool ko rek ñamal ko benn pikiir o oh, xaaj Ibrahim Gaye noonu la nekkee toog ci saal bi rek noot dëgg bër DG përëxëti <laughs> jàpp naa ko en ordre alhamdulilah yàlla du ma seetaan o oh, DG félicitation ñu teg euh, ndogulu bakkane DG di muuñ rek ne xool bi sedd na xaaj Ibrahim di waxtaan rek <laughs> yaa li nga doon wax ci jullit mbooloo ceetet su ma génnee fii tey doo ko tardeet du ba am solo waaye tàkkusaan bi sama pakka solo bi métti woon na njaay yebal na fi benn médecin pikiir na ma moo tax ma tane nii <laughs> taarakalla imaam haj ibrahim sa kooruk tey jile faw nga fayaat ko médecin bi la seet waroon na laa laaj nañu ndogu waaye su weeru koor gi jàllee da ngay fayaat bés DG <laughs> fayaat bés imaam <laughs> Uras Info, Ribari Gao. Tewor. Uras Info, l'info à temps réel. Uras Info. Djanga te notre force, le traitement de l'info.